Jean-Pierre Tin may directeur collège Saint-Gabriel bu Thiès voilà depuis demba ñu ngi ci ligéyum li jëm ci bac bi euh, ci li gëna pratique mo doon accueillir président de jury yi ñi nga xamné wa office du bac ñoo leen yónni fi yebal fi pour ñu liggéey am nañu fi ñetti jury 644 45 et 46 ñu ngi fi di liggéey euh, ci anam yu yu baax en tout cas parce que teel nañoo ñëw démb tey xëy nañu teel a xëy aussi di xaar surveillant yi ñu fexe ba surveillant bu nekk xam fan lay dem euh, surveiller élèves yi aussi balaa six heures euh, six heures et demi am na ñu fi nekkoon déjà ci biir collège bi di xaar heure bi jot bi waxtu wi jotee aussi gisante nañu ak président de jury yi ñu génnee matériel bi ci biir mal yi en toute sécurité ñu daal di ko tasaaroo ci classe yi pour euh, li jëm ci première épreuve bi bi ñu paree ci loolu ñu xool euh, yenn anam yoo xam ne ñoom soxla nañu ko ci seen jury yi pour ñu jàpp ci aussi pour liggéey bi gën a oyof li jëm ci élèves yi ak euh, mbas mi ñuy dund depuis l'année dernière jëm ci élèves yi donc dañoo prévoir jo jox nañu gardien yi benn carton gel boo xam ne ñu ngi koy utiliser au fur et à mesure élève bu bu jaar fii yëpp ci portail bi yëpp dana dina laal ci gel bi balaa mu continuer te ci dispositif bi aussi wax nañu leen ñu góorgóorlu ci masque yi mënuñu assez sûr jàpp masque di ko taf taf ci sa gémmiñ pendant pendant trois heures de temps c'est c'est c'est c'est c'est terrible mais de temps en temps on nañu ko xëcc tout respirer quand même mais il ne faut pas que nous bàyyee ko complètement déjà distance bi len séparé déjà xawna bax euh jëm nañu ubbi fenêtre pour que air bi mëna jall aussi. bu bax aussi participé aussi participer ci ministère de la santé Et euh, nit ñu diko

dañaa gis euh, ay signes yoo xam ne peut-être infirmière bi dafa xalaat ne mën na nekk euh, cas moo tax ñu jébal kooku ci euh, médecin médecin yi pour ñu xool ko bu baax a baax waaw maintenant bu dee mënul continuer épreuve yi en ce moment docteur bi dina bind benn kayit boo xam ne mën na tax ba ñu traité ko et après mu ñëw ci deuxième session bi bi ciy topp après voilà en ce euh, ñu jéem a jàppale ku nekk ci ci ni mu mel rek voilà. xanaa ñu gën di respecter li ministère bi di euh, kii nit ñi di ñaax nit ñi voilà pour ñu def ko voilà surveiller bu baax respecter distance yi euh, bu ñu soxlaa gel laal ci. pour éviter aussi di contaminer keneen wala en tout cas nga aar sa bopp aar ñeneen ñi rek loolu moo dàkk comme ça noonu la ñu mënee dàkkee mbir mi en attendant que vaccin yi généralisé wu bu baax a baax ñëpp a jot ci ñu mën a xeex affaire bi nu mu waree voilà voilà merci euh, à vous euh, de quoi TV encore là prestige voilà prestige TV je ne vous connaissais pas, c'est un plaisir de vous rencontrer. Voilà. Certainement, on se retrouvera pour d'autres euh, séances, peut-être au résultat, peut-être. Voilà. En ce moment, vous serez, j'espère, tout heureuse de constater que nos jeunes étudiants, nos élèves, nos futurs étudiants ont fait un travail remarquable. Et c'est ce que nous souhaitons à tous. Voilà. Excellente journée à vous. Euh, euh, Ahmadou Lamine Badji

ak mbir mi mooy mooy ci li bees waaye sentiruñu changement parce que composition composition la calendrier la ñu de programmation mon, moom mu dem mbas mi moom ñu yàgg dund na depuis daaw euh, naam Nam, fi mu ñu fekk daf ñu fekk ci période euh, crise au colonie d'ao, daaw de fekkoon maanaam ci euh, moment bu muy wàññeeku fi mu nekk nag dafa nekk ci moment boo xam des dëgg-dëgg ci qui waaw ci diggu waaw donc euh, loolu ñu yoon touti tiitange waaye di sante yalla rek di ko ñaan euh, may ñu yeggale ko ci jàmm waaw. kon fii moom euh, protocole sanitaire bi respecté nañ ko fii. waaw waaw sauf que xale yi dañu dañuy faral di leen fatali ni mbir ma ngi fi nañuy nañuy tak masque yi. parce que ñaareel même mag ñi sax dañuy faral di dindi masque yi waaw dañuy dañuy nekk côte à côte bien que kenn la ci table bu nekk am na benn distance mais quand même euh, dañ leen di demander ñoo ñoo ñuy takk masque ba pare laaj ne surveillant yi bu ñu tàyyi di leen ko di leen ko fàttali waaw. wax nga ko léegi ne mbas na fi mu toog nii dafa yokku ndax yéen ba ngeen démarré prévu amu leen fi ay nit ñu leen xelmat leen ñu am doomu jàngoro ñu ngi xelmat leen ñu am ko wala ñu ngi non euh, loolu euh, non non loolu moom xam naa euh, lu lu ñu jafe la parce que yaakaar naa même ki docteur sax gis nit nii rek te daal di xalaat nii am na doomu jàngaro ji dina xaw a jafe bon waaye li ñu mën a wax rek mooy gis ñu ku tëdd jàmbat ba ñu yóbbu ko hôpital pour ñu seet lan moo ko war a daal te ci dolli sant yàlla di ñaan yàlla yeggale ko jàmm tamit waaw message rek ngay lancé candidat yi ak suñu rek ngir ñu mën a tàmbali rek épreuve yi si jàmm. waaw euh, bon surveillant yi moom euh, xanaa leen ñaan rek ñu ñu teel a ñëw avant heure euh, démarrage épreuve yi xale yi moom ñu mënuñu lu leen lu leen ñaanal vraiment bonne chance di leen encourager di leen xamal ni du lenn buñ ko yenu composition la comme composition bu ñuy def classe nañ dalal seen xel ànd ak seen xel bu boobaa dinañ gën a performant waaw di leen ñaanal nag vraiment euh, yàlla defal leen ci xéwal may leen euh, ndam daal waaw. jërëjëf di leen doon sant. présentez-vous. Ah, je m'appelle Juliette Larissa. Je suis candidate au baccalauréat session 2021. Vous êtes en quelle série En ah, série L'. prime vous êtes sans savoir que vous avez démarré les épreuves aujourd'hui. Alors, vous avez démarré avec quelle épreuve On a démarré avec la philosophie. Et les épreuves, je crois que ça a été abordable ah, Pour moi, ça a été abordable parce que durant tout ce, qu'on a fait durant l'année, on peut dire que c'était abordable parce que nos profs ont été à la hauteur. Ok, euh, euh, savoir aussi que vous avez fait vous faites le bac en ce moment avec, euh, dans un contexte euh, particulier, en l'occurrence euh, la COVID-19, aussi l'anticipé philo que vous posez avant, mais cette fois-ci ils l'ont supprimé. Alors, est-ce que ces deux contextes-là ne vous ont pas porté préjudice ah, on peut dire la COVID-19, ça ne peut pas être facile avec les masques on n'est pas habitué, mais on fait avec. C'est pour, le, pour respecter les mesures barrières et, pas pour, et on lutte aussi pour la propagation, pour ne pas que la maladie se propage. C'est ça et philo aussi. Bon, tu sais, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas savoir l'impact que, que, cette chose aura sur toi. Donc moi, je ne connais pas ce que ça faisait de faire l'anticipéphilo. Je le fais maintenant, ça ne me dérange pas, je suis bon. pas mhm. porté non, je pense pas, ça m'a pas porté plus. Les révisions étaient un peu intenses parce qu'avant on faisait philo à un mois des examens. Maintenant on le colle avec les autres matières, ça c'était un peu difficile mais bon, on est obligé d'en faire après, vous allez faire quelle, euh, quelle euh, À 14h 30 on va faire euh, mathématiques. Mathématiques. Mhm. donc, qu'est-ce que vous dites à vos camarades candidats ah, Je dis à mes camarades candidats de ne pas lâcher le prise, de, s'accrocher, de faire tout ce qu'on peut parce que c'est quelque chose, je peux pas, c'est pas une opportunité, mais c'est reprendre toute une année c'est un peu difficile. Donc on fait, on se donne à fond et après c'est fini. On a notre bac et on

Euh, philosophie lañ démarré ce matin. C'était accessible, on peut dire, dans l'ensemble, parce que on woon nañ programme Et on s'attendait à tout. donc li avez jàng lañ leen jox. waaw jox nañu luñ jàng. ci ban domaine la jox domaine 1 domaine 2. liberté c'est ngi domaine 2 art aussi c'est na domaine 3 bi. ak philosophie domaine 1 bi. ak philosophie domaine 1. Mhm. ok ban sujet la sujet 3 bi. sujet 3. commentaire commentaire mhm.

on va dire parce que au début métti woon na trop parce que dañoo amoon habitude nga boucler filo bi daal def lépp daal di pare après nga concentré wu ci yenen matière mais dañ ko bolé mu nek benen révision bo bu gëna metti mais ki nañ ko gérer nañ ko dé ça va ak épreuve yi ni mu démarré né am ngeen yaakaar ne que da ngeen am ben taux fay ci considérable fii ci lycée Malick Sy. waaw lycée Malick Sy moom yàgg def ay preuve à chaque fois dañuy am ay taux de réussite yu baax donc. am nañ yaakaar aussi tamit cette année aussi nañ ko am lan ngay wax euh, surveillant yi sam bokk candidat yi aussi bon surveillant yi ñu ñu tolérant rek te xam ni que élèves yi mën nañu stressé parfois ñu ba mu leen di pousser que ñu def yenn yi aussi tamit élèves yi aussi tamit candidat yi ñu ànd ak seen xel rek ba ñu tiit yàlla jàppale ñu sutura ñu ñun ñëpp ba ñu génn si ba li yëpp mujj si ay rek incha allah